internetu uh, wasaare si libi ak lii di Dakar Midi ñu nekk fii si CICES uh, si bés bu mag bi nga xam ne Institut Afrique moo ko organisé ngir sàggal ay étudiants am ñu fekk fi nag suñu benn papa ba nga xam ne uh, ku baax macha allah ka nga xam ne def na liggéey bu bëri si liggéeyu si musique sénégalaise muy papa Souleymane Faye ñu ngi lay ziar papa. ay ziar baax ay ziar baax. tey la moo waral ñëw bi fii présence bi. bon dañ ma sollicité pour ma ñëw bokk cérémonie bi parce que. Youssou Ndour dafa benn woy ci hymne national en wolof way boobu lañ ñëw pour interpréter ko ak ak chorale bi ak euh, waa armée bi hymne national en wolof en français yëpp ñu woy ko quoi waaw moo taxoon mu teew tey fii. Papa Souleymane Faye yow nga nekk benn icône si musique sénégalaise kenn weranteetu ko depuis un certain temps yëguñu la gisuñu la projet yi daal fu mu fu mu toll. moo demoon nag parce que may pare yu bees. depuis des années maa ngi koy togg ñoragul nag mais am na yaakaar ne en deux mille vingt deux bi la am na yaakaar ne dina yegg quoi. mu toog naa ëpp na dix ans quinze ans génne wu ma CD mais bëggumoon tàngal ceeb yooyu dama bëggoon génne yu bees sax. bëggoon génne yu bees tàq. moo affaire bi yàgg nii. waaw mais gën naa maa ngi denc surprise bu neex. surprise bu neex. ok ñu gis musique sénégalaise fan yi dafa am ay phénomènes yu si juddu muy Sidi Diop ak Wally Seck nga xam ne tey joué ñu bëri nag di indi ay rivalité seen diggante ba mu indi ay wax noo jàngatee loolu. ñoom nañu moytu fans yi fans yi ñoo leen di jaxase. waaw parce que fans bi dafa ñu ñuy fànn artiste dafa métti ñu xamuñu violence xamuñu xeex xamuñu xamuñu loolu ku nekk nañ dem ci woykat bi ko neex mais xamuñu violence. donc euh, violence bi nañ ko bàyyi àdduna ñëpp ñi ñëpp ñu ngi woy mais ku nekk a sa wërsëg ku nekk sa wërsëg bul ñee kenn waaw mais euh, ñun de loolu xamuñu loolu ñun ñun artistes yi ñun suñu bëgg dañu biir dañu bëggante woon amuñu woon concurrence ku nekk ak sa ku nekk ak sa timbre voix ku nekk say sa fans dañu moytu fans yi fans yi ñoo leen di jaxas waaw. jii ñu ne Wally Seck mooy numéro loolu ñoo ko jàngatee maanaam moom mooy numéro un si euh, musique sénégalaise bi ba di ko teg si kaw kii di Youssou Ndour Youssou Ndour moom kenn mënul teg kenn ci kawam mënut a nekk waaw xale nañ soog a judd demaguñu fenn ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañuy jàng ñoom ñëpp dañuy ne instant bi ñoom dañuy jàng demaguñ fenn demaguñ dara. defaguñ dara ñoom ñëpp dañuy jàng dañuy jàng mais am nañu wërsëg am nañu ay nit am nañu ay fans pourquoi pas pourquoi pas dara xëyul sotti mais ñoom ñëpp dañuy jàng. ñoom ñëpp dañoo nekk di jàng. waaw dañuy jàng waaw dañ def ndànk. kon daal nañ jàngiwaat ba si kanam. waaw mooy njàng scolaire bu baax. musique sénégalaise noo ko jàngatee dans l'ensemble. waaw musique sénégalaise kay li ma ci métti rek mooy mbala mbalax mbalax bi rek lañ xam te musique sénégalaise lu riche la xeet bu ne am na musique am mais mbalax bi rek lañ xam mais am na musique yu neex aussi yu fi nekk yoo xam ne kenn xamu leen. c'est dommage la c'est lan moo des pour musique sénégalaise tey jii comme ni ñuy jëlee Davido wa sénégalais jëm jëli Davido indi ko fii Sénégal fay ko xaalis bëri ñu koy def musique sénégalaise Wally Seck ay Nigéria jël ko wala ay ñii di français jël ko yóbbu ko pour jouer moo des. loolu noonu moo des. lan moo des si lan. lan moo des maanaam si musique sénégalaise ñu exporté ko. un dem France si boppam jël ko xaalis bu bëri ñu bañ dem di jouer si ay saal yu ndaw. waaw mais saayu yu ndaw yi saa yu mag yi euh, saa yu mag yi dafa doy waar dafa nekk Europe <coughs> am na na saal yoo xam ne boo nekkul star sa dëkk doo fa jógee. c'est normal. doo fa jógee Sénégal na dañuy jaawale grande vedette ak star dañ koy jaawale te ñoom star lañ te ko du dëgg dafa nekk ay mbir yoo xam ne boo nekkul star sa dëkk. daf doo ko duñ la ko jox benn ñaari saar moom am ci benn dëkk benn moo fu nekk comme ñaari président benn moo fu mën nekk booy dañ def ndànk rek xam ne seen bës a ngi ñëw am amul dara lu ñuy xëccoo dañ def ndànk rek ku nekk sa wërsëg def ndànk seen wërsëg waaw soob yàlla waaw soob yàlla ah? waaye ñu def ndànk rek yëpp dina baax yëpp dina baax